assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yépp di leen ziyaara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 ñu dellusi si ci beneen tem ba ñoo tuddee pourquoi l'imam Mahdi devrait apparaître à la fin des temps te mu mel ni bu ñu defee jàngat dafay doon laaj boo xam ni mbokk yi dañu ko laaj te muy lu tax imaam mahdi di feeñ ci aaxiru zaman waaye mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay melokaan yoo xam ni dafa ko waxoon ci aaxiru zaman ba nga xam ni képp koo xam ni jullit la buy dund ci jamono jooju dana yëg ni mi ngi dund ci jamono ju difisil ndax yonent bi waxoon na ni bu ñu demee ba aaxiru zaman musiba yi dinañu bare ba mel ni nuage yi ni ñuy bare ci kaw asamaan waaye yonent bi it jàngale ni bu ñu tolloo ci aaxiru zaman dañuy gis ni diineel islaam dina néew doole te bokk na ci liy néewal doole diineel islaam mooy jukko yi nga xam ni ñi ngi ko doon xaar ci ñu tuddee seen bopp jullit jukko yooyu dootul nekk ci seen dënn moo tax yonent bi ni wàllu tolerans muy jéggale dina doon lu raar ci aaxiru zaman waaye yonent bi wax ni it bu ñu tolloo axiru zaman nee na jàmm dootul bare kon ñi nga xam ni dañuy dund ci paix ak ci stabilité mën nañ leen wàññi waaye yonent ni injustice dina dominer mond bi ci aaxiru zaman nee na wàllu corruption it dina nekk lu yaatu waaye mu ni loolu du tee jàkk yi dinay fees waaye nee na jàkk yi bu feesee ak ay nitit ay jullikat ñooy constituer majorité bi te mooy ñi ciy nekk di sujud ak di ruku yonent bi neena seen xol la mu waroon incarné ci jukko jullit yu tedd bare na buñ ko gëstoo ca xol ya duñ ko ca fekk mu ni téere bii di alxuraan dañ koy teg de côté ndax ñi ko jàng nee na dootuñu soxlo utilise leeru alxuraan bi pour jëriñe waaye lañoo soxla mooy jàng ko pour werante jàng ko pour tëri ku tëriwul ni ngay tëre nga ni damm na xaraf yi wala yàq na baat yi yonent bi ni lii mooy melokaanu ñiy jàng alxuraan ci aaxiru zaman waaye itam mu ni bu ñu tolloo aaxiru zaman nee na nit ku bëgg sàmmoonteeg sa lam la sant nee na di mel ni ku jël xalub safara daldi koy ngëb sa lox ndax ñu bare dootu dootuñu accepteeti islaam waaye dootuñu accepteeti condition yi islaam tëral moo tax mu ni bu ñu ci tolloo yonent bi nee na li xaraam dana dem ba ñépp foog ni dafa daggan ndax na moo bare waaye nee na li dagan dina dem ba ñu bari di laaj ndax dagan na wala haram na ndax majorité bi yépp ñi ngi dund ci lëndëm mu ni bu ñu tolloo ci aaxiru zaman nee na dina dem ba ñi yàlla dénk xam-xamu leer te seen xool yi rafet te bu ñuy wax ñuy wax dëgg nee dañu leen di jël relégué leen au segon plan nee ñi nga xam ni nag seen xol lëndëm moo ci ne te bu ñuy wax lu neex seen bakkan rek lañuy wax yonent bi nee dañuy jël jiital leen jox leen plateau télévision yi jox leen micro yi waaye teg leen ci kanamu grande cérémonie religieuse yi te foofu xam nga bu ñu fa tolloo problème am na su ko defee nag faw ñu jàng ni yàlla ba muy jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko jël organiseel ko léppam fexe ba lépp yonent bi tegu ci bëgg-bëggam moom yàlla noonu la yàlla di jële imaam mahdi ci baatu bismillahi rahmaani rahim inna fataxnaa lak fataxan mubiinan li yaafira laka allahu ma taqaddama min danbika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yacdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka allahu nasran adidan yàlla daal di koy organiser léppam moom imaam Mahdi bu ko yàlla organiser lee léppam ba noppi yàlla daldi jël imam mahdi def ko mu doon l'homme de la situation waaye def ko mu doon moom imam mahdi li nga xam ni ñi dëkk di dund ci axiru zaman crise ba ñoo jànkoonteel ak injustice ba ñoo jànkoonteel yàlla jël imam di def ko muy constituer la solution moo tax ci jamono jooju di axiru zaman suuf dafay tollu foo xam ni yàlla dootul amati confiance ci benn guide pour bu mën a jiital jullit yi jëmale leen ci njub moo tax yàlla daldi tànn jamono jooju daldi indi imam mahdi muy la bien guidé li koy sabab nag mooy jamono jooju ci aaxiru zaman yonent bi nee na ñi ñuy tuddee boroom xam-xam nga xam ni ñoom ñoo jàng téere yi nga xam ni ñoom ñooy organiser cérémonie religieuse yi nga xam ni ñoom la nit ñu topp seen gannaaw yonent bi nee na bu ñu demee ba aaxiru zaman neena dinga gis boroom xam-xam yoo xam ni bu ñu xamee dëgg dañu koy nëbb nee na bu ñu xamee dëgg dañu koy nëbb waaye neena na bu ñu gisee caaxaan dañuy xool ndax seen intere personnel mi ngi ci bu ci nekkee neena jaral na leen jàppale caaxaan bi bu ci nekkul nee na du denoo dénoncé caaxaan bi waaye dañuy noppi kon dañuy doon complice yonent bi ni ñi waroon gudde nit ñi ci jamono jooju di aaxiru zaman nee na boo leen dégloo ci seen kàddu njëkk ba seen kàddu gu mujj bu ñuy wax seen intérêt rekk lañuy ñuy défendre dañuy dem ba dañuy teg yàlla de côté teg yonentam bi di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam de côté teg alquran de côté mais di défendre seen intérêt personnel rek abadan waaye yonent bi ni bu ñu ci tolloo it nee na da dem ba gis nii ñi ñu tuddee woon boroom xam-xam te naw leen yonent bi neena dañuy dem ba la leen di yitteel mooy alalu àdduna nañuy fexe ba am voiture de luxe nañuy fexe ba am ay passeport diplomatique nañuy fexe ba am ay building nañuy fexe ba lu rafet lu ne ñu am ko waaye li taxoon neen nit ñu topp leen te mooy ñu jàngal leen luy jëm ci yàlla waaye wan leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dinañu ñëw ci jotaay toog fa ba jug ba dem doo xam kii ban façon guide la ndax doo dégg mu prononcé lu jëm ci luy defar doomu aadama di ko jëmale ci boroomam ci diskuuram li ngay dégg mu koy wax ci discours bi yépp mooy loo xam ni day dellu ci wàllu àdduna yonent bi ni buñ ca tolloo it mu ni ñi waroon gidde nit ñi jëmaleen ci yàlla dootuñu gidde nit ñi jëmaleen ci yàlla mais dañ leen di gidde jëmale leen ci seen intérêt personnel te loolu bu amee problème day am waaye yonent bi ni aaxiru zaman suñu gisee dëgg dañuy seet nañu fexe ba combattre dëgg ba ba fay ko waaye nee na bu ñu gisee caaxaan nag dañ koy financé di xool nan la ñuy def ba caaxaan bi mën a gën a yaatu mën a gën a law nee na loolu mooy am ci réewub jullit yi yonent bi ni nag bu nu tolloo foofu problème bi rëy bi nga xam ni dal na ci mondu islamique bi nga xam ni ni yàlla bëggee dootu nu ko doxale nee na ñi mag dootu ñu yërëm ndaw yi waaye nee na ndaw yi aussi dinañu ñàkk kerse ba lépp loo xam ni rekk boroom béjjaaw wax na ko àttan nan la ca tegal wax ju ñaaw waaye nee na tooñ dafay yaatu ndax dinga gis ku nekk bu xëyee nan lay seet mooy na muy fexe ba yàq deru moroomub jullitam yonent bi ni bu nu tolloo foofu nag yàlla indi l'homme de la situation te mooy l'imam Mahdi imam Mahdi nag yàlla def na ci moom ay jukko jukko yu mu gërëm moom yàlla waaye li tax aaxiru zaman li période boobu di dangereux yépp imam Mahdi mën a ñëw fexe ba indi justice dal di fi jële injustice li ko ko def mooy yàlla dafa jël imam Mahdi def ci moom ay jukko yu am solo bi ci jiitu mooy yàlla dafa def ci moom volonté imam Mahdi ku am volonté la yàlla jël ci moom def ci moom courage ku am fit la moo tax yonent bi bu ko daan misaal ni bu naree def dara dafay mel ni gaynde sibi gaynde sibi bi décider songu songu adversaire am moom la ko yonent bi daan misaale pour wane courage am waaye itam imam mahdi yàlla dafay def ci moom xam-xamu wahyu mooy xam-xam boo xam ni moom dootul jëfandikoo bakkanam dootul àtte ak bakkanam dootul waxe bakkanam mais lu muy yëkkateeti di wax rekk wa ma yantiqu anil hawa in yu illa wahyun yuha dañuy nekk ci gannaaw bàyyi ko muy tibb ci ilmu laduni di wax la muy wax jugee xayb moo tax la muy wax mu mën ca gidde communauté musulmane bi waaye yàlla dogalit imam mahdi kenn mënu ko corrompre waaye kenn mënu ko chantage te gis nga bu yàlla indee gidd boo xam ni mënuñu ko corrompre mënuñu ko chantage kon gidd boobu lu mu bëgg doxal dana ko doxal te loolu la yàlla def ci imam mahdi waaye nag jamono ji muy ñëw ci aaxiru zaman dafa doon fekk ñépp a ngi bàkku ñi nga xam ni nit ñi topp nañu seen gannaaw ña ngay bàkkoo li nit ñu topp seen gannaaw te moment boobu day fekk ni la bàkkoo sax jëriñu nu ko ñi leen topp ñii di bàkkoo askan yonent bi ni ñii di bàkkoo askan di dóor seen dënn naan askanu diw laa bokk ci axiru zaman nee na ñii di bàkkoo aada di dóor seen dënn naan aada bi la sama maam saxaloon mooy continuer di wéy nee na ñii di bàkkoo pouvoir di dóor seen dënn naan may nangam ak nangam nee na ñii di bakkoo alal di dóor seen dënn naan am naa nangam ak nangam nee na yàlla xëy yabal imam mahdi mu daaneel loolu lépp bu ñëwee askan dootul amati njëriñ ndax askan bi am njëriñ mooy bokk ci lumière yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bu ñëwee it pouvoir dootul amati njëriñ ndax bu demee bu defee démonstration ñu xeeb ñëpp waaye bu ñëwee it aada dootul amati njëriñ ndax bu tegee xaqiqa aada daldi jóge ci monde shahada waaye bu ñëwee aussi bàkku dootul amati njëriñ ndax bu waxee ñu xeeb ñëpp déglu ko loolu yëpp yàlla def ko ci moom ci xam-xam yàlla def ko ci moom ci pouvoir waaye yàlla def ko ci moom ci volonté ñu ni mooy lom de la situation yàlla daal di koy indi muy ci côté islaam bi waaye yàlla dénk ko pouvoir boo xam ni bu ñëwee dina doxal diinal islam ba mujj boroom xam-xam yi seen bopp yi xamoon islam di laaj sax ndax li imam Mahdi di doxal islaam la tellement que day ànd ak rigueur rigueur bi nag mu ngi dellu ci pratique bi ñu fonkaat julli ñu fonkaat woor ñu fonkaat génne azaka ñu fonkaat aji màkk waaye ñu fonkaat zikr ba lépp lu doon caaxaan ñu gis loolu commencé di dissiper ndànk par ndànk muy ci côté islam bi waaye bu ñu delloo si côté tariqa tijaniya nga xam ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif mi fondateur bi moo annoncé ni imam Mahdi sama taalibe lay doon nekk sama xalifa ci biir tariqa bi ñu annoncé ni ci la bokk léegi ñu laajaat ni axiru zaman nu mu mel lan moo war a nekk taxawaayu imam Mahdi ci biir tarixa tijaniya ñu ni jamono jooju li waral Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijani Cherif fexe ba imam di bokk ci tariqaam mooy jamono jooju ñi Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijani dénkoon tariqa bi ñu liggéey ca liggéey bu yaatu kenn ku ci nekk daldi tëral idéologie am dafay dem ba seen idéologie ñiy ñëw seen gannaaw di ko dëggaate mu dem ba dinga gis ñoo xam ni dañuy incarné wàllu tariqa tijaniya ñu toog ci jotaay ba waxtu wasifa jot te doo gis nu lal malaan waaye nga gisit ñi nga xam ni dañuy incarné wàllu tariqa tijaniya munoo toog ak ñoom ba ñu tuddal la benn baat boo xam ni dana tax nga sopp ki nga xam ni dañu ni ci tarixam lañu bokk te mu di Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif nga gis di nga dem ci jotaayu zikr di xaar zikr ba waxtu ba jàll te doo gis ku génne malaan lal pour nu def zikr boo xam ni zikru xadaratul jumaa la nga gis ni chartu tariqa bi dañu ko néglige dañuy dem ba ñu bare dootoo xam sax ndax tariqa bi moo tax ñu am cër bi ñu am tey te fekk na ñi Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani jotoon jiital rawatina bu dee Afrique noire ñu mel ni Cheikh El Hadji ñu mel ni Seydi El Hadji Malick ñu mel ni Serigne Babacar Sy ñu mel ni Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass ñu mel ni Cheikh Abbas Sall ñu mel ni Thierno Seydou Nourou Tall ak ñeneen ak ñeneen da ngay gis ni ñooñu lañu daan doxale ci tariqa bi day dem ba aaxiru zaman ñu gis loolu commencé mel ni malaan bu nu làlli la ndax ñooñu fu ñu daan toog seen wax yàlla lay doon seen wax yonent bi lay doon seen wax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif lay doon waaye nga gis nu dem ba changé loolu gis képp ku incarnéti wàllu diine islaam ñu ni moom lañu koy xàmme wala mu incarnéti wàllu tariqa tijaniya mën na toog ci jotaay dajale fa ay nit fukki waxtu ak ñaar du fa tudd yàlla du fa tudd yonent bi du fa tudd Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani waaye wàllu àdduna rekk lay tudd ñu dem ba nga xam ni nitu politique yi waroon topp ci ginnaaw kilifa yi di daw seen gannaaw ngir nu tarbiya leen ñaanal leen loolu ci aaxiru zaman dafay dem ba dafay dañ mujj na nit ki yore wàllu diine yore wàllu tariqa yore alquran mooy bàyyi la mu yor dem topp ca gannaaw politicien ba moom di daw ngir politicien bi am lu mu ko jox ci wàllu ay millions walla lu mu ko jox ci wàllu luxe loolu day dem ba ci aaxiru zaman dafay am ki waroon jug dem topp nitu yàlla bi waroon jug dem topp ki yore alquran ki yore salaatul fatiha kiy diriger julli ba ca jàkke ja pour kooku ñaanal ko kooku tarbiya ko kooku defar digganteem ak yàlla kooku au contraire moo fay bàyyi jàkka ji bàyyi fa malaanu Cheikh Tijani Chérif bàyyi fa alquran dellu topp ca gannaaw nitu àdduna ba pour lan pour jëriñu ci moom ci wàllu àdduna te ay nitoon ko topp am confiance ci moom pour mu defar seen digganteek yàlla léegi nag loolu bu xewee it Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif day fexe ba imam Mahdi ñëw bokk ci tariqam waaye imam Mahdi mooy indiwaat vrai visage bu tariqa tijaniya ndax bu ñu ko dégloo bu ñëwee dina fexe ba fu malaanu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif nekkoon mu delloo ko fa waaye dina fexe ba jeunes yi nga xam ni commencé woon nañu di fàtte luy dellu si tariqa tijaniya ñu xamaat enseignement yi nga xam ni moom la tariqa tijaniya di jàngale ngir ndaw yi ak mag yi waaye dina dellu si it nii nga xam ni waxoon nañu tariqa tijaniya bérébum ngëneel la waaye kenn xamul ngëneel ya imaam Mahdi dina fexe ba ngëneel ya dana ko feeñalaat ba ñëpp yéemu ci ngëneel googu waaye dina fexewaat ba nàmmaat pas-pas yi waaye ba taxawalaat rox ya ba nit ñëpp dellu joxaat seen bopp yàlla mu di seen borom waaye sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel bu amatul nattukaay waaye gëm Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani wóolu ko kóolute goo xam ni moo war a nekk ci diggante nit ak wasilaam ndax yàlla moo ni yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi wasila te loolu imaam mahdi moo koy liggéeyaat ci tarixa ya waaye liggéey ba ca ëpp solo mooy dina jël flambeau tariqa bi yëkkati ko ba foo toll ci àdduna di seen flambeau tariqa tijaniya muy muy rayi rayi ci bëtu nit ñi kon loolu moo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif moom it mu préféré imam Mahdi bu ñëwee axiru zaman mu bokk ci tariqam te yàlla dogal muy bokk ci tariqam waaye nii jamono di mel ci axiru zaman nga xam ni dafay dem ba kenn dootul mën a contrôler dara mu dem ba aada fas yéenee daaneel xaqiiqa waaye mu dem ba caaxaan ëpp doole li nga xam ni lu rafet la waaye mu dem ba ñu jël dëgg fas yéene ko suul daldi indi caaxaan daldi teg waaye mu dem ba ñu jël injustice jiital ka waaye fàtte wàllu justice yàlla indi l'homme de la situation te muy imam mahdi moo tax imam mahdi jamono ji ko yàlla di indi te muy aaxiru zaman c'est parce que yàlla dafa yëg ni ki nga xam ni tey moo mën a guider communauté bii di communauté yonent bi sallallahu alayhi wa benn nit ak doy yàlla yàlla defar ko ñëpp war a topp ci gannaaw mu gidda leen te mooy imam di alayhi salaam lii moo tax aaxiru zaman bu demee ba lépp rëcc jullit yi ba ñu dem ba ñépp dañuy sentir ni islaam amatul doole noonu islaam yi nag gënati am doole waaye ñu dem ba gis ni nag bokk na ci li ñàkkal doole islaam la ca ëpp ñi nga xam ni tuddee nañu seen bopp jullit ñoo ko ca liggéey ndax ñoo dem ba abandonné diine ji ñoo dem ba abandonné wàllu tolérance ñoo dem ba la leen di ñor mooy yàqantey der ku nekk di yàq sa deru morom waaye ñoo dem ba noonoo ci seeni biir créer ay division waaye ñooy dem ba kenn ku ca nekk dootoo yéene sa morom jàmm boo sañoon bés bu xëy deret ma ngay tuuru ñii di dugg ci ay jàkk di rey seen moromub jullit ñii di jël ay bomb di yóbbu di ci rey seen moromub jullit loolu nag bu demee ba bare kon ñoom ñoo néewal doole diinal islaam ndax diinal islaam ànd la war a doon diinal islaam jàppante la war a doon waaye diinal islaam tolérance la war doon waaye diinal islaam jàmm la war a doon waaye diinal islaam justice la war a doon waaye diinal islaam égalité la war a doon waaye diinal islaam harmonie la war a doon waaye diinal islaam équilibre la war a doon loolu yëpp nag su demee ba ñu ni amatul forcément liy amati mooy la ñoo tuddee wàllu tyrannie mooy la ñu tuddee wàllu méchanceté mooy la ñu tuddee wàllu injustice mooy la ñu tuddee wàllu hypocrisie mooy la ñoo tuddee wàllu égoïsme waaye mooy la nga xam ni du rafet ci kanamu yàlla mësul rafet ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu bu ñu demee ba axiru zaman mooy am léegi nag yàlla dogal ki mën a delloo si waat diinal islaam jox ko gëdd gëmu mu mës di am du kenn ku dul ki yàlla di yabal yonent bi di ko tamponeel muy nitu yàlla bu mag ba ñu di ko tuddee imam mahdi waaye aussi ki nga xam ni moo mën a delloo si waat ba lumièru tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani fu nekk ñu koy séen ci àdduna bi naasiril xaq bil xaq bi ñëpp xam lan la waaye ñëpp xam lan mooy xatmiya Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ñëpp xam lan mooy xatmiya Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ki mën a delloo si waat lumière boobu mooy nitu yàlla bu mag ba ñoo tuddee imam Mahdi kon nag lii moo tax yàlla di jël imam Mahdi di ko indi ci aaxiru zaman ndax jamono ji ko yàlla di indee mooy pour mu relever le défi waaye mooy pour fi nga xam ni fa la islaam nekkoon démb mu delloo ko fa li koy permettre moom imam Mahdi mu mën a doxal lool nag mooy yàlla moo koy def un homme de pouvoir bu war a ji monde bi lépp te lépp di dellu ci wa yansuraka allahu nasran azidan yàlla moo ko jox pouvoir boobu lépp di dellu si ca la nga xam ni nammeefub yàlla la waaye lépp di dellu si ca la nga xam ni ndimbalal yàlla la waaye lépp di dellu si ca la nga xam ni noonu la yàlla bëgg àdduna di ko doxe looloo tax yàlla tànn benn rox daal di def ci moom lumière ya mu def ca moom daal di koy dugal ci benn jëmm te mu di jëmm imam mahdi alayhi salaam yàlla fas yéene ko indi aaxiru zaman mu daldi feeñ pour defaraat lépp loo xam ni yàqu-yàqu la woon ci biir diinal islam bi waaye pour delloo siwaat gëdd gi nga xam ni wàllu soufisme rawatina tariqa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani am na ko ci biir diinal islam waaye am na ko ca na muy defaree ruux ya waaye am na ko ca na muy organiser ngëm-ngëmu jeunesse bi ba ñëpp delloowaat jox yàlla la mu moom waaye delloowaat cofeel gi nga am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaat ko waaye delloo si waat ngëm gi ñu gëm Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani gën ko dëggalaat loolu mooy mission bi imam mahdi war a doxal ci penku ba ci sow war ka doxal ci kanam ba ca gannaaw war ka doxal ci ndeyjoor ba ca càmmooñ muy mission universelle bu war a wër àdduna te di ñëw ci jamono joo xam ni nag mooy jamono ju gën a naqadee dox mission muy jamono axiru zaman kon loolu lañu indi woon ci thème bi di ñaan yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif mu def nu nu nekk taalibe Cheikh Tijani xàqan may nuy dund ak moom dundu zahir ak dundu baatin may ñuy dund ak moom dund abadan ba biir illiyin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu